sax dañuy wax gouvernement bi su dee am na fonds bu mënti doon on naa parlé de cinquante milliards bu ñuy yokk nañu wax nan lañ koy joxe kan lañ koy jox ci ban anam lañ koy joxe c'est important c'est important parce que dañu nekk réew boo xamante ne du ñu xaar ba mbiri yegg fu muy yegg ñuy soog a wax fii plan d'urgence fi am yépp gis nañ ni mu mujjee plan yoo xam dafa am urgence le code des marchés ñu teg ku fële liquidé ñu génne ko dugal ko ci dëkk bi gis nañ le plus souvent lu muy mujjee ñu ci war a jot duñ ci jot on a besoin de savoir aujourd'hui lan la war a def ñaata la fan lañ koy def nan lañ koy defee parce que n'est pas question ku ñuy bàyyi en rade certaines populations certains sénégalais certains compatriotes qui sont dans le besoin total il n'est pas question que ñu koy def di ko jaarale si seeni circuit yoo xamante ne c'est gangréné par la politique il n'en est pas question donc loolu dañu bëgg ñu leeral ko moo tax ba ñu ma waxee mesure président yi j'ai di c'est très bien que mu jël ay mesures loolu la ñu yàkkamti mais mise en exécution bi la ñuy xaar pour xam nan la koy defee c'est important mise en exécution ñooñu nga xamante ne amatuñu salaire amatuñu lu ñu lekk marchand ambulant bi di wër suba ba ngoon du gis ku jënd am na si ñoo xamante dañuy wër suba ba ngoon du ñu am ku leen ne kaay jaay ma ñeneen ñoo xamante ne ne tàmmoo nañ di jaay guddi di jaay cere di jaay fonde di jaay ngalax di jaay leneen ak leneen ñu jaay guddi parce que couvre am na ñoo xamante ne ne suñu fayee courant fay ndox fay luwaaye lekk c'est parce que dañ leen ko yónnee ñu leen ko yónnee ñu ngi bitim réew te fu mu toll nii talu ñu leen ñoom seen bopp la ñu ñoo ñooñu mois bii rek we fin du mois bii seen coono dina commencé feeñ te bëri nañu du ñu jeex ñoo xamante ne si luuma yi lañ doon dem di jaay seeni xar di jaay seeni nag pour yóbbu seen kër loolu la ñuy dundee ñu tas luuma yu nekk si Sénégal yépp ñooñu actuellement sax laay wax ñu ngi si ay jafe-jafe le secteur informel nga xamante ne moom mooy la majorité ñuy yëngu Sénégal ñi sont dans le secteur informel moo tax ma ne ko arrête de faire du mimétisme dans les pays européens amul informel les gens sont le formel fii c'est le contraire donc mbiri du mbirum fonctionnaire rek fonctionnaire yi nii lañ toll par rapport à la population active donc tous ces gens nga xamante ne ni contact bi le contact humain dem li jën lijjanti génn dugg ñooñu ñëpp tey il vont être dans des difficultés donc ñooñu nan lañ leen jàppale fan la ñuy jaar pour jàppale la fan la ñuy jaar yan levier nañ ñu ko expliquer mu leer nañ fi gaaw nañ fi gaaw.